alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kaasifi lxumma wa safici lumma wa ala aalihi wa saxaabatihi aimma wa man tabi'ahum bi ixsaani ila yawmi alqiyaama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 di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ko ñaan moom buur bu màgg bi lu ñu jaamu mu néew mu bari yàlla nañu ko boole nangul ca matam ga ak mbaaxam ga na mu toll te bañ ñu ko nangulee ci suñu matadi géeg manqué géeg mën a tooñ gi di ko ñaan it rëcci yu ñu yëg ak ñu ñu yëgut yu ñu tey ak yu ñu teyut yàlla nañu boole labal ci géeju njéggalam gu yaatu gi bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa ñu del si waat ak yéen ca kartanal yàlla ci seen émission bu ñuy tuddee albayaan ñu ànd seek seen mbokk seen soppe seen xarit Mouhamed Tayib Cissé mu mal ni dañoo ñëw pour fàttaliwante ak yéen nu ko buur bi bëggee te diggalee ñu ko noon ci alquranul karim wa zakir fa inna zikra tanfaa al ay jullit bu ñu dajee njëkk jotaay wa di jukk war nañoo mën a laayante biir ci seen biir lu leen di jëriñ su ko defee lu ñuy fàttaliwante nag suñu njëriñ lañu ni neen mu ma ni damay faral di wax ma ne kenn ku nekk toll nañ ci jamono joo xam ni li nga ñaawle war nga góor góorgóorlu ba rafetal ko li nga bonle war nga góor góorlu ba mu baax li nga rëccile war nga góor góorgóorlu ba dabaatal ko mu mal nii jamono ji toll nañ foo xam ne ku ci tiitul rekk yow doonit ci nu muy doxee ci ñàkk sutura ci ñàkk xorma ci ñàkk kersa ci jikko yu bari yoo xamante ni jikkoy sangala waaye mu rëcc ñu bu ca jiitu nag te mu gën ma métti waaye mitti mboolem jullit moo ñàkk sutura ci biir pénc mi boo xoolee yàlla subhanahu wa taala quatre vingt turam yi juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent sataaru ca la bokk te mooy aji suturaal ji sataaru ca la bokk te mooy aji suturaal ji ñu baal ma ci kàddu gi toll nañ ci jamono joo xam ne kenn fenelatul kenn waaye kenn ku nekk yaay fenal sa bopp xaw ma daañu dégg wax ji xaw ma duñ ko dégg toll nañ ci jamono joo xam ne ñu bal ma ci moo bi waaye kenn fenelatul kenn waaye kenn ku nekk yaay fenel sa bopp yàlla buur la boo xam ne xamul uññi suturay jaamam kenn ku nekk ci ñun yaa ngeeg caay-caay wala yaa ngeeg ay mbir yoo xam ne bëgguloo mbindeef xam ko te doo toog ci jotaay ba mu ba mu ba jotaay ba neex nga nga uññi sa sutura boobu waxtu wu nekk rek yaa ngi bëgg di suturaal sa bopp waa lu tee kon nga suturaale nun sa moromu jullit te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax mu ne man satara musliman satarahu llahu yawmal qiyamati képp koo xam ne suturaal nga jullit yàlla dana la suturaal keroog yawmal qiyam waa ndax ñun bëgguñ sutura yàlla yowmal xiyam ñun ñëpp moom la ñuy bëgg mais naka ngay mën a uññee ci sa sutura mbokku jullit li ci gën a danger ba danger mooy ci biir internet bi danga gis koo xam ne lim jot a paase muy lu ñaaw ci digganteem ak boromam moom la ñëw dugg ci laay fu jàmbur di ko fa expliquer te yàlla mu muuroon ko malaanu sutura kenn xamu ko. est-ce que loolu mbokk yi buñ tolloo ci boobu jamono est-ce que jarut kenn ku nekk tiitaat ci sa bopp ñu baal ma sax ci tur bi may tudd benn xale bu jigéen bu ñuy wax Miss français xaw ma dafay def live mais man sikkuma kuma kooku de vraiment jëlu may tor di ko teg ci daram déedéet moom dafa am envie live mais ñi nga xam ne ñooy dugg ci biir live bi di wax seen secret ak malaanu sutura bu leen yàlla muur kenn xamalu leen ñu jël seen dund gi yépp teg ko ci taabal bi mboolem jullit di ko xam ñooñu laa jàpp ne ñooy ñu manqué ñooy ñu bon ñooy ñu yées ndax ki gën a yées ci xeet wi mooy ku wéet jigéen góor gu wéet jigéen def ak moom mooy yàlla te kenn yëgut nga toog ci jotaay dafa expliquer li ngeen seq yéen ñaar ko ko gën a yées ci góor waaye jigéen ji nga xamante ni seq nag góor gu ko lewut euh, mooy yàlla ëlbatiku dem toogaat ci jotaay dafa expliquer loolu ko ko gën a yées ci jigéen léegi buñ tollee ci jamono joo xam ne ne kenn ku nekk li nga jot dund ak sa boroom kër ci biir néeg bi moom ngay toog ci jotaay wala ci internet ba di ko fa expliquer boobu jamono mbokk yi est-ce que jaroon ñu tiitaat internet bi mbedd la kenn moomu ko te ñun ñu fi dugal suñu secret wala suñuy mbir dañuy dee bàyyi ko fa suñ doom est-ce que ñoom waruñoo ñëwaat est-ce ñun ñu ngi bàyyi xel loolu bu baax est que ñu ngi jàngataat lool ñoom bu ñëwee ba dugaat gis loolu est que ñoom dañ foog ne loolu mooy vie bi ñoom it ñu tënk ci seen bopp ñu bàyyiwaat ci xel te lii nii ñu nara seetaan mën na jur yàqu-yàqu bu rëy ci biir réew mi. góor jigéen mag ndaw nu ma ko waxee woon internet bi suñu ndey yéeng fi suñu baay yéeng fi suñu mag yéeng fi suñu rakk yéeng fi suñu tante yéeng fi suñu bàjjen yéeng fi kenn ku nekk boo demee bay dugal dara fexeel li ngay dugal doon loo xamante ne luy jàjji nit ñi la luy dimbali ni ñi la luy yee ni ñi la mais bul dugal mukk loo xamante ne luy jur fitna la wala luy uññi secret jàmbur la kon su ko defee mbokk yi lii lu mat a bàyyi xel la doomu aadama bi nag yàlla da ko fee wàccee ngir dara su góor góorgóorloo ba xam lu tax yàlla wàccee ko fi mu tënk ci boppam am na texe àdduna ak àllaxira su ñàkkee fulla ak fayda nag ba ñàkk a xam li ko fi yàlla wàccee foog ne lekk naan julli sañse kër oto jabar doom lekk mooy dund gi bis boo dee bañ wàqi suuf dëggal la ci daa xam ne da nga doon caaxaan da nga doon font kon mbokk yi kenn ku nekk ci ñun war na mën a joxe bon exemple ci pénc mi kenn ku nekk ci ñun war na mën a am lum rus war na mën a am lum jomb waaye da ngay xool lu mel ni internet àdduna bi yëpp monde entier ñëpp a ngi ci nekk nga dugg di expliquer lu doy waar doy waar doy waar kenn ku nekk boo duggee ci internet bi da nga gis li may wax lan la doom di expliquer di yàq waajuram waajur di expliquer di yàq doomam ñii di di yàq nagam ak nagam ak nagam mais loolee nga def bëgg nga de da ngaa bëgg congé ku la ci jox xelaat mais ki la ci jox xelaat jarul ngay woote publiquement ñëpp di la dégg ñàkkuloo jege ñaale ñàkkuloo jege ñaale boo xamante ne war nga ko mën a wax loolu gaaral ko ko mu jox la ci solution paa nga koy wax ci internet bi ñëpp di ko dégg gis nga jamono ji toll nañ foo xam ne ku bon rek ku bon rek nit a tax nga bon ci jàngat bu gàtt parce que li nit ñëw teg ko ci internet bi nga dégg ko yow ci sa xelaat bu gàtt boo la yàlla dimbaliwut da naan lii de moom moo moo jaadu da nga jéem a découvrir loolu nan laak naka la kon su ko defee nañ leen fexe yaraat sunu bopp xam nu ñuy waxee xam nu ñuy communiquer wax dafa dangereux wax dafa dangereux am na ci loo xam ne njëkk nga koy génnee sag gémmiñ gi rek segg ko seggaat ko xool ko xoolaat ko seet ko seetaat ko nekkoon ne lu nekk ci sa xel bi rek làmmañ bi war na ko mën a tudd déedéet am na ci loo xam ne bu xasee jub rek mën na yàq pénc waxtu wu nekk dama koy répété réew moom di Rwanda jafe-jafe bu ñu njëkk a am lu leen koy yébboo mooy mooy mooy wax kaddu lu leen koy yébboo mooy kaddu benn boroom xam-xam day wax nag mu ni ndox ndox mën na mën na laabal lu ne ndox mën na setal yére mën na setal yaram mën na setal kër mën na setal taq-taq bu nekk ba mu des taq-taq kaddu. am na ci kàddu gu ñaaw goo xam ne boo xasee génn ci sa gémmiñ ndox mënu koo setal kon kenn ku nekk rawatina ñun ñii di wax na yaraat boppam ci ni muy waxee xam li muy wax xam fu mu ko war a waxee ak naka la koy waxee boobu jamono lañ toll mais tolluñ ci jamono joo xamante ne lu la neex wax lu la neex wax ni ngay jànge bi maanaa wax noonu nga war a jàngee noppi parce que bëri waa na ñoo xamante ne li maam Cheikh Tidiane si Al Maktoum doon wax nee na. am na ci ñoo xam ne buñ buñ waree wax jar na jar na xeet wi yëpp dajale lu ñu am jox ko ko ngir mu noppi ndax waxam musiba lay jur waaw am na ci koo xam ne bu nammee wax jar na ñun ñëpp ñu làmb suñu poos lu ñu am ñu dajale ko jox ko ko ne ko sëñ bi kat noppil ndax waxam du luy defar lu yàq la waaye am na ci koo xamante ne bu ne moom day noppi jar na ñun ñëpp ñu làmb lu ñu am jox ko ne ko yow waroo noppi danga ngaa war a wax parce que sa wax day jëriñ kon yooyu foog ñu xàmmee ko nekkul ne ñëpp ñoo war a wax kon dafa am ñu moom wax waaye am ñu moom noppi nit ki kon foog nga contrôler sa bopp foog nga yar sa bopp foog nga yar sa xel foog nga yar sa xelaat foog nga yar sa kàddu xam li nga war a wax ak li nga war ta wax xam li nga xamante ne waxi biir néeg la ak li nga xam ne waxu ëtt bi la ak li nga xam ne waxu pénc mi la benn bu nekk lu mat a xàmmee la mais li ñu war a wax ci biir néeg bi boo ko génnee ci pénc mi yaa ngi yàq. yaa ngi yàq te kenn ku nekk na ma ko waxee war nga joxe bon exemple ci njaboot yi ñuy wax ci suñ ginnaaw ci suñ rakk yi surtout loolu su ko defee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am jikko yu mu bëggoon ñu incarné ko muy jikkoy sang te daañu ci xuus après beneen émission bu ñuy defaat nga xamante ne xalifa général de Tijane moom la joxe comme thème ci gàmmu ren gi pour ñu waxtaan jikko yu rafet yi jikko yi nga xamante ne moo tax yàlla subhanahu wa taala yónni yenent yàlla muhammad muy jikkoy sang daan na toog moom yenent bi ndeysaan yaram bi tàng mu ne taqallaqu bi axlaqi lay maa ngi leen dénk ngeen jikko woo jikkoy yàlla jikkoy yàlla nag lépp a ngi ca màndoo ngi ca muñ a ngi ca téye nga ca noppee ngi ca ah njuba ngi ca suturaa ngi ca kersaa ngi ca xormaa ngi ca lépp a ngi ca kon kenn ku nekk war nga làmbar sa bopp posé sa bopp question ni jëmm ji kan la kon su ko defee boobu jamono lañ toll waaye tolluñ ci jamono joo xamante ne rek da ngay dund comme bàyyi ma am na ci ñoo xamante ne bàyyi ma sax moo leen gën dund te ñu ngi ci pëp euh, ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci réew mi di dund kon su ko defee yooyu yëpp benn bu ci nekk nañ ci jàngataat suñu bopp nañ ci nafaraatal suñu bopp waaw ah, surtout internet bi mbokk yi nañ koy daw nañ koy ragal dama ciy insister lim yàq bëri na. bëri na kër yu tas te internet bee ko tas bëri na ku suturaam xaweeku ci internet bi la voilà kon kenn ku nekk rek jéem a la suturaal sa mbokku man mii maa maa ngeeg caay-caay woo xam ne wala maa ngeeg sikk yoo xam ne du toog ak nit wala xarit jege ko ba xam sikk yooyu ci man parce que waxtu wu nekk maa ngi def effort ngir suturaal sama bopp waa noonee may def effort ngir suturaal sama bopp ci sama sikk sama sikk yooyu nan lay mën a xoolee nit sikkam ma di ko ma di ko uññi lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel benn borom xam-xam nee na kenn ku nekk toll nañ ci jamono joo xam ne da ngay bàyyi sa ayibu mopp bopp di lijjanti ayibu jàmbur te loolu danger ci danger dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fa la yam bàyyi sa bopp di lijjanti ayibu jàmbur te mu leer la ne yow am nga ayib am nga ay sikk yoo xamante ne war nga koo régler sa digganteek sa borom jagal ko jubal ko baaxal ko kon su ko defee yooyu nga yooyu nga war a concentré wu mais pas nga concentré wu ci ayibu jàmbur yenente bi nee na min xos min xos xosni islaamu mar i tarkuhu ma la yaanihi kenn ku nekk lii rafetal sa lislaam mooy nga ko ci li nga xam ne amal na la njëriñ mais lu la amalul njëriñ sa yoon warut see nekk nit ki war nga mën a jàmbure jàmbure du nag ci lépp ngay jàmbure mais war nga mën a yar sa bopp ba sa yoon nekk sa yoon nekk ci lu sa yoon nekkul sa yoon nekku ci waaye waroo doon nit koo xamante ne lu nekk nga ne am nga ca part de responsabilité déedéet am na ci loo xamante ne sa cër la am na loo xamante ne du sa cër nit ki foog mu jomb yenn yi foog mu rus yenn yi su ko defee ñu gën a góorgóorlu xat bu baax a baax a baax buñ demee bay wax nañ wax loo xamante ne luy jëriñ la waaye buñ wax loo xamante ne luy lor la su ko defee yàlla ñu yàlla boole defal ndimbal defal ñu sutura defal ñu tawfiix may ñu gudd fan ko ànd ak jàppandalal ñu càkkuteef yépp bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam seen bokk la seen soppe seen xarit imam Mouhamed Tayyib Cissé di wax rek ni in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu